sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñu loxo suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy boroom man-man te mooy boroom sañ-sañ ñëpp ñi nga xam ne jóg nañ te lislaam doon seenu tool yàlla na suñ borom gën leen a dëgëral gën leen a kàttanal gën leen a manal ba lépp loo xam ne yéene nañ koo def ci lislaam ak ci doomu aadama ñu def ci defin kaw ak seen jot te daje ci ngërëmul suñ borom moo ginnaaw loolu nag mu mel ni jamono jii dafa am loo xam ne dafa siiw lool te bari te mu doon loo ne lu yàq-yàq bu rëy rëy la te mat bàyyi xel te loolu nag dara andiwu ko ci ñun lu du mooy jikko yoo xam ne dañ koo teggi nañ te jikko moo naka jekk moo doomu aadama ànd xam nañ ne lislaam bi mu ñëwee jikko yu rafet yi nga xam ne moom la tàmmu tànn ko yu fi nekkoon la waaye nag bi mu ñëwee moom moo ko suubal boppam beneen suuwaat xam nañ ne tabe amoon na xamoon nañ ne nay am na waaye tabe suub gi ko suñ borom suub gi ko islam suub boo njëkk boo tabee mën nañ laa sant mën nañ laa tagg ca tabe ga nga def waaye léegi nag tabe day daf àgg na ci mën nañ laa nañ la tagg ci ñi ña nga tabe ba noppi itam nga am nga amee ci àjjana nay doonoon loo xam ne ka ka kam nekkoon ci moom lam ko daa jural mooy nit ñi bàyyi ko bañ bañ bañ koo jublu bañ koo bàyyi xel loola nag tey nag moom weesu na nit ñi bàyyi ko bañ koo jublu waaye da cay tege ne mën na koo tàbbal sa war kon jikko naka jekk moom doomu aadama ñoo ànd waaye nag bi lislaam ñëwee jikko yi da koo suubaat gëneen suubaay su suubeen goo xam ne moo tax mu bëgg ko gën ngir bëgg ko dëgëral ci doomu aadama yi gën koo saxal ci doomu aadama yi loolu moo taxoon mu def ko kon nag ñu xam ne kon jikko moom naka jekk moo doomu aadama ñooy ànd mook société bu mu mën a doon ñooy ànd ngir société ba mën a am jàmm ngir mën a dund itam ci dundin wu rafet ngir mën a am dundin gu neex gu gu mucc loola lépp nag jikkoo rek moo ko daa maye loola nag kon moo ni woon ne jikko moom loolu munta mu ñàkk lu munta ñàkk ci doomu aadama yi la waaye mu mel ni nag muñ xoolee suñ société bii muy Sénégal dafa mel ni dafa am loo xam ne dafay feeñ te te tam tam te bëgg fee samp ay tànkam te mu doon loo xam ne lépp buñ ko xoolee ba mu jeex yàq rek lay doon du ñu jural jàmm day gën a tax ñu gën a tàggalikoo day gën gën a tax suñu juboo gën a gën a gën a néew day tax itam suñu ànd mën a gën a néew ba tey loola nag mooy kenn li li li gën a siiw fi toll kenn ku nekk li nga bëgg mooy ne ca kaw ñu lay seen kese ñaareel ba ca tegu itam beneen bi ci teguwaat mooy kenn ku ne lii sa ittee bëgg di doon ab waxkat boo xam ne ñëpp dañuy xam ne yow mii awaat ab waxkat nga te xam mu mel ni lamb ji nga xam ne moom lañ të tëgg fi ñu toll ci senegal mooy lamb bi wax ka mën a wax rek mooy ki nga xam ne mooy jàmbaar ji mooy ki nga xam ne mooy kawe loola nag te xam nañ ne wax jooju kat moo tax wax ju ne danañ ko dégg ak ak danañ dégg itam lu ne te loola lépp mooy ngir bëgg wone rek ne man ab waxkat la mooy tax ñu di ko def nag xam nañ ne daasi bu rëy rëy lay jur ci doomu aadama yi xam nañ ne itam doo maanaam musiba mu rëy rëy itam lay jur ci société bi nga xam ne moom lañ nekk loolu moo tax naka jekk ñu moo sa dégg ci ñi ñi jiitu woon ñi daa wax ne ja wax day bu fekkoon ne te buñ ko doon misaal ne wax ne moom xaalis la danañ wax ne noppi ci loo xam ne amul benn njariñ loola moom buñ ko doon misaal dañuy wax ne mooy wurus yonent bi tam loolu da moo taxoon mu wax ne ndax ëllëg da ngeen a jàpp ne am na ñoo xam ne danañ leen fëtam ci suufu danañ leen fëtam ci sawara te la leen dara waralu ko lu du seen i seen seen i wax rek moo leen ko yóbbee kon mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la yonent bi itam moo xamaloon ne no am na ñaar yoo xam ne ku ma fexe fexe ba garanteel ma ko dinaa la garanteel ne danga nga dugg àjjana loola mooy lan mooy li nekk diggante ñaari sikkimam maanaam li nekk li nekk ci sikkimam muy làmmiñam bu fexee ba garanteel ma ko garanteel ma itam li nekk diggante ñaari tànkam na nga xam ne kooko garanteel naa ko ne ko ëllëg na lay dugg loolu nag kon moo nuy wax ne moo ñuy xamal ne wax doona loo xam ne lu dansé la loo lu lu mën a indi lu nekk te dañoo mel ni nag fi mu toll lii suñ góor a lépp mooy mën a wax rek kon mën a wax googeen nañ ci bàyyi xel bu baax a baax am foo xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne fexe na ba làmmiñam mu téye ko ba ya ba ba ayu làmmiñam mu mucc ca fexe ba mucc ci itam ay wi nga xam ne mooy jóge ci diggante ñaari tànkam yooyee nee na kon na xam ne kooku bu ëllëgee àjjana la jëm am benn bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog daal di laaj ne jën jëf ngeen jàpp ne moom la yàlla gën a bëgg ba mu ko waxee saxaaba yi dekkoon ak moom ñëpp toog ne cell ndax xamuñ luñ cay tontu moo mu ne leen bu ngeen ko bëggee xam mooy sàmm aw labbiñ kon ñu xam ne kon dooma doomu aadama yi wala jaami yàlla suñ borom yëpp nañ bàyyi xel li ñuy wax te xam ne doonul loo xam ne da koy wax mu jàll rek waaye loo wax lu nekk suñ borom bàyyi na ko xel te dana la ko laaj bu ëllëgee te te dana la ca fey lam la ca war a fay wala mu mbugal la ca lam lam la ca war a mbugal yàlla ñu suñ borom musal nag ci mbugal loolee mbugal googee juddoo ciy wax yàlla nañu suñ borom gën a musal ay ak musiba yi nga xam ne mooy tukkee ci wax yoo xam ne wax yu yoo bàyyiwul xel waaye da nga koy wax rek ngir bëgg xam le ne man kat laa yàlla nu yàlla musal ci loolu yàlla na suñu borom gën a dimbali ba ñuy xam li ñuy wax te di ko wax niñ ko war a waxee tam doon loo xam ne buñ koy wax lañ ca jublu mooy jariñee ak jariñu waaye doon loo xam ne da nga koy wax rek ngir wane sa bopp loolu yàlla nañ ci yàlla musal loolu itam ñi ñaan suñ borom moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ musiba yi nga xam ne wax yu bari yeeg ak wax loo xam ne doonu tegu ko fenn lu danga koy wax rek ngir bëgg wane ne man mii kat xëy na phénomène laa bu bees boo xam ne ci àdduna si kenn daw ko kenn kenn maa maa maa phénomène bu bees bu judd laa wala bëgg wane ne man kii rek la loola yàlla nañ ci yàlla musal sa yàlla gën a sàmm senegal ba mu mucc te muccal bépp jullit ak bépp réew bu jullit te loola nag lañ koy may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 dalika fadlullahi yutihi man yashaau wallahu dul fadlil azim mathalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha kamasali lximaari yaxmilu asfara biisa masalu lqawmi alladina kadabuu bi ayaati llah wallahu la yahdi alqawma alzalimin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 summa turadduuna ilaa aalimi alxaybi wa shahaada fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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

assalaamu aleykum. assalaamu.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 allahuma salli ala sayidina wa moolana muhammadin salatan tunajjina biha min jamihi alahwaali wal afat wa taqdi lana biha jamia alhajat wa tutahiruna biha min jamii sayiat wa tarfauna biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha aqsa alghayati min jamii alkhayrati fi lxayati wa bada almamati amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin